wa mbok yi tay dama ñew di lañ jox ben secret bo xamné ci walu noble la buñ ko waxé nekul nak lu bon wala di ci tiaxan wala di ci fo buñ ko waxé moy ñi nga xamné sax lu si gëna ëpp moy farata gi dañoo nekk ci néegu sey moo xam ko goor ki wala ku jigen ki mëno leen nekk si jamm toujours rek si ay dispute ngeen di nekk toujours si ay xulo ci ay jotee ñoñu ñoo tax su lu si bëri sax ñu joxe secret yi ndax parfois nga gis goor bu li ci wo wala jigen di wax ak yow bay joy wala di wax yow ba nga xam ne kii xol lay waxee te sëy dafa métti nit ki bu bàyyee lépp takk la yow nga bàyyi lépp nanga koo sëyal kon bàyyi leen xel seen noonu yi am na ñoo xam ne waxoon nañ ne ñii seen sëy du dem ñii ne nii ñii ne nele donc yow mi nga xam ne ne yaa nekk si biir néegu sëy bi mooy ku góor ki muy ku jigéen ki bàyyi xel loolu ngeen xam ne àddina bi dara saxu fi lépp lu ñu fiy def jaaruwaay la rek waaye na rafet na rafet ndaxte ajjana ak safara mu ngi si diggante ñaar ñi àq itam nañ ko di ko moytu góor ñi nañ di muñ jigéen ñi nañ di muñ di suturalante waaye nag ñu jox leen ay secret yoo xam ne bu ngeen ko defee yàlla mën na leen a dimbali même ñi nga xam ne seen nekkuñu ay marié mën nañ ko def waaye nag si farata si farata moo xam nit ki yéen a bokk même lal wala bokk leen lal bi mën nga ko def dafa sori dafa tukki wala nangam mën nga ko def day gën a xëcc nit ki si sa euh, bopp dana tax nit ki dana la bëgg xelam dina faral di nekk si yow dina am si yow yërmande dina la bëgg itam kon lii nii. lem lañ koy liggéeyee lem pur lay doon nag bu nekk lem bu ñuy jaxase wala lem boo xam ne nekkul original su boobaa ah assuré loo moom ne mbir mi dana sotti kon ut leen lem pur beneen ba mooy li ngeen gis nii sunguf yi dañ koy liggéey mais lii nag ay jat la ay jat yu ñuy def la si sunguf nga xam si ni après si suuf naa yi lay nekk xaw ma ko koy def de waaye moom bu soobee yàlla. ñu ko liggéeyee ba jox la ko parce que sa tur lañ koy jat ak tur nit ki su ko defee jafal ko si benn mbuus wala ñu ëwal la ko nga di ko def sa suuf njegenaay nit ki moom xanaa mu ñàkk la ko wax te dana tëb tëb un jour rek ne la man kat fan si yow xelam day xalaat toujours da lay a bëgg te mbir mu mystique la boo xam ne mag ñi dañ ko daan jëfandikoo. nekk nekkul loo xam dañ koy jël di ko joxe gratuitement waaye ku ko itoo itam soxla ko bu ñu déggantee mën nañ la ko liggéeyal bu neexee yàlla suñu borom bu fekkee ne farata moo la tax a jóg dégg nga kon nag ñu ngi wax tam ñi nga xam ne dañu bëgg a def istixaar di seetlu seen mbir wala wàllu diggante ba xam ndax seen diggante yi ànd na wala àndul wala nga bëgg a xam ndax say mbir sa mbir àddina foo si toll bu ñu déggantee mën na la defal istixaara ngeen di woote si numéro boobu cent 76 605 63 19 am na whatsapp kon secret bi si laa ne jóg waxal leen ko léegi directement ngeen mën koo bàyyi xel te ngeen def ko partage vidéo bi pour mën a dimbale ñi nga xam ne ñu ngi si jafe yooyu ñoom tamit ñu mën see jëriñu kon l'impur ngay ut l'impur su ko defee nga ubbi ko soo ko ubbee da nga siy jàng wala xaytu alayka mahabbatin minni cent onze fois soo paree nga wax sa tour wax tour ki nga bëgganteel moo xam sa jëkkër wala sa jabar wala ki nga bëgganteel fu mu mënti ne moo xam yéenay tëdd moo moo xam tëddu leen moo xam mi ngi fi moo xam nekku fi waaye nag bu si gën a am doole mooy mu ne fi ngeen tëddandoo si même lal bi nga wax ko ba pare ëf ko si ci biir nga tëj ba mu baax bu la neexee nga protéger ko nga collé ko ndaxte lii bu xasee ba tëju kenn waratu ko ubbi butéel bi nag dafa dafa rëy ndaxte sama butéelu lem laa jël pour jox leen exemple mun nga ut butéel bu ndaw nag dégg nga su ko defee soo paree si loolu noonu fexeel nga takk ko sa lal nii dégg nga wala nga fexe ko def ko foo xam ne dana làqatu wala nga def ko si suufu lal bi si suufu laal bi nii si suufu suuf bu la neexee mun ko si def fekk fekkee ne loolu yëpp day métti si yow. Hmm? Euh, fexeel nga def ko si tagar bi rek nga takk ko foofu fenn wala nga ut foo xam ne danga ko fay denc parfois nag nga nekk koo xam ne day compliqué waaye li nga takk fii lan la nangam nangam ne ko lii kat lu ñuy aar la wala lii kat musluwaay la bu fekkee daan la dindi ko nga dindi ko ut foo ko def bu fekkee da ngaa nekk ak jëkkër wala jabar ju compliqué nag xoolal noo koy defee waaye daan nekk si côté lal bi soit si suufu lal bi du ko gis wala quelque part daal boo xam ne yow yaa koy def kon lii dafa nekk mbir moo xam ne mën naa bàyyi xel sa kër yi leen di jox yu tuuti yu si gën a bëri nit ñi dañ koy faral di négliger waaye lii maa ngi leen di bàyyiloo xel ngeen def ko te di leen di ñaanal nag te di leen di ñaan ngeen góorgóorlu si sëy yi moo xam muy jigéen yeeg góor ñi ngeen suturalante te muñante te muñalante dégg nga ndax euh, ngeen xam ne ku si nekk mën naa am tiyaaba si moroom te ngeen muñ ku si nekk mënoo nekk di nekk nit ki pendant des années ngeen ne si jàmm rek loolu moom yenn saa yi pëccoo xiiroo ngaay mun naa waaye suturalante leen. di suturaalante moo xam si ku góor ki ku jigéen ki di am tolérance kon loolu laa ngi di dénk ñu ngi jëm a fii nag ba suba jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu